Euh, soo ko si maale lay nuyu. maa fay. tey ñu ñëw ci kenn koo xamante ni euh, monde làmb gépp ñoo ko ñàkk muy Père Balla euh, nga nekk ci loxoom ba yan témoignage nga ñu mën a jox ci loolu. waa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di wax ne kenn ñàkkul ñu ñoo ñàkk parce que paa bi suñu père la woon moom moo ñu tàggat moo ñu yar ñun xamuñu keneen ku dul moom lépp lu nekk ci ñun ginnaaw yàlla yonante bi moom moo ko def si ñun. kon aussi tamit kenn ñàkkul ñu ñoo ñàkk waaye tamit dañ koy sante yàlla bu baax xam nga yàlla moo ñu ko joxoon jëlaat ko kon tamit sant yàlla daal. Mhm. yan nga ñu mën a jox ci euh, déggante bi ngeen daan déggante wala lan la la daan mës wax loo xamante ni jàpp nga ko ba tey. waaw liñ mën li mu daan wax mooy kooku kenn gënu ko kooku kenn du moom parce que ku baax la ñun dañu laan conseil man moom sama père la woon man dama laan waxtaan ak moom lu bari daan na ma wax lu bari. dama jóge woon tëngeej ñëw ba jéejawaay di entraînement foofu mu ne ma soo góorgóorloo lu nekk mën nga ko am si làmba mu fonka ma jox ma cër moo tax su ma toogee si école de lutte Balla Gaye ba léegi ginnaaw yàlla yonante bi moom moo tax sa gis naa ni mu ma téye woon aussi tamit ma ñëw gars yi dalal ma ma nekk ak ñoom ma li man jéejawaay laa dëkk kon aussi tamit dañ koy ñaanal rek yàlla yërëm ko xaare ko àjjana te yeexe ñu daal. Mhm. noo def ak coono. sant sëñ Tuubaa bu baax. Euh, lan yan témoignage nga mën a jox ci Père Balla. waaw Baye Balla moom Baye Balla Sénégal la quoi Baye Balla làmb la parce que moom xàmmewul doom bi mu jur ak ki ko jox. waaw loolu sax moo tax balaa xamul plaisir doom ndax comme yi fekk gars yi sax ñuy féete war na fi ñu féete moom ñëpp la njaboote woon quoi tey école de Balla Gaye ñoo ñàkk ñoo ñàkk quoi ñun te ñun ñëpp dañu ko yëg tamit parce que nit la bi nga xamante ne suy dem day dem ba jeex day dem ba jeex quoi. ñu leen koy jaale yéen ñëpp. waaw ñu ngi koy ñaari yàlla suñu borom dolli ko yërmande te jégal ko te njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom teg ci loxo incha allah.